voilà. passeport diplomatique yi. Eh, kii di Adji Mergane Kanouté nekk député à l'Assemblée nationale bokk ci euh, euh, groupe parlementaire euh, Benno wax na ci doon voyager dem ba ci Assemblée nationale mu jàpp ni boo nekkee ministre sortant donte léegi nga def passation de service ak un ministre entrant waratoo mën a bénéficier ci lii di passeport diplomatique yi passeport diplomatique xam nañ ne ministre da koy yore député à l'Assemblée nationale da koy yore mu daal di invité ñi nga xamante ne ñoom ñooy les tenants du pouvoir actuel. à la retenue mbirum passeport diplomatique boobu daanaka du coow lu bees parce que déggoon nañ fi coow loo xam ne asu amoon na ci assemblée nationale bi ñu ciy wax mbirum fraude ak yi ni mel lan mooy sa jàng ci mbirum passeport diplomatique yooyu nga xamante ne jamono jii nii vraiment mu ngi soulever ay critiques ak commentaires yu bëri ci espace politique bi. waaw xam nga mbirum passeport asam diplomatique dafa hmm. dafa bëri coow parce que boo xoolee. Hmm. nguur gu nekk rek nga ñëwee am nga problème passeport diplomatique. ci hmm. Ablaye Ablaye Wade jamonoy Abdou Diouf jamonoy Macky Sall. ba ci ñoom ñi xam nga ñoom dañoo jàpp ni passeport diplomatique dara la fekk du dara. Mhm. benn forêt bu ñu jëfal nit koo xamante day liggéey réewam. Mhm. ndax tey kilifa diine dañ koy am. Mhm. opérateur économique dañ koy am. tey député yi ni nga ko waxee noonu dañ koy am seen jabar ministre dañ koy am. léegi lan moo war maanaam gouvernement bu fi ñëw bu nekk rek première coow li ngay njëkk am mooy affaire passeport diplomatique mooy affaire fayanto yi ngay wax noonu day tàmbali dikk. parce que ba barki demb am nañu dëkk Touba ñoo xam ay kilifa diine ay kilifa diine yu dëkk Touba juróom-ñaari nit yoo xam ne déposé seen Facebook rek ñu bale ko ko ci ay ah kilifa diine lan yoo xamante ne si nguur Macky Sall nga amoon ñun ñoo ko bloqué régime bi fi nekk bi tey seen passeport diplomatique ñi ngi si ministère affaires étrangères loolu moo tax may laa si biram euh, Diomaye Bassirou Diomaye Faye hmm. ngir kam mu wax ak ministre bi seen Fall xam naa ko bu baax ministre des affaires étrangères parce que man ak moom ñoo bokkoon ànd def benn combat contre Aliou Sall ci Nations Unies muy taw. Hmm. bu fàtt loolu man ak moom ñoo bokkoon combat bi. jóge maanaam New York dem di déposer li nga xam ne mooy suñ plainte. combat bu nu ma sa def bitim réew ma nag moom parce que ànd na ko rawatina Amérique. Hmm. Yacine moom xam na ma xam naa ko. Hmm. kon nañu fexe ba kilifa diine yi cër bi ñu amoon comme ni ma la wax noonu. ñu bañ a tàbbi ci li Macky Sall doon def di nangu seen passeport yi. ndax tey boo nangoo passeport ancien ministre bu kilifa diine ñëwee passeport am doo mais est-ce que ministre bu nekkatul ci fonction également xel nangu na yu baax xam nga ministre bu nekkatul ci fonction xam nga ministre de la république xam hmm. nga ministre de bu dee benn bis liggéeyal nga ko maanaam ci réew te ñi ko am ñaar fukki ministre ak juróom-ñett ba fanweeri ministre mun ñu ko passé ci ancien ministre loolu wàññu dara. mais nee nañ am na ñoo xam ne dañ ciy business lijjante ko justement di di ci di ci def ay fraude. waaw ñu koy def yoon da leen a war a topp. bu fekkee ministre dañ koy def laa wax mais yow da wax ne ancien ministre war na ko am. parce que ku liggéey sa réew. ba wàcc war na sa réew am na lu mu la waral xanaa te loolu ab sakkese la du dara. ndax xanaa ministre yi nga xamante ñoo liggéey seen réew passé nañu tey am passé du def lu du noonu. parce que ñun nii xam dañoo nekk ay député man bi may njëkk a tukki 1999 laa tukki man pourtant man bi may tukki maa ngi amoon maanaam fóoru passeport de service. Mhm. parce que sama papa dafa nekkoon député assemblée nationale. parce que règlement intérieur Assemblée nationale dafa waxoon ni député yi bu fekkente ni te da nga nekk maanaam député dangay ngay am passeport diplomatique ak sa soxna sa sa ñeenti doom dañuy am passeport de service. Hmm. loolu moo nekk si règlement intérieur Assemblée nationale. bi ñu ko euh, defaraatee ñu ne léegi la membre du bureau Assemblée nationale daf koy maanaam am avantage yi comme ni ko ministère di amee. Hmm. député yi aussi dañ koy am mais député yi au lieu que léegi seeni soxna yëpp doon ko am. léegi seen benn soxna moo koy am. loolu moo waraloon jamono yuy euh, boo xool dix euh, dix-septième maanaam treizième législative yi. Mhm. boobu député yi ku si am ñeenti jabar da ngay am passeport sa ñeenti jabar bi dañuy am passeport. Mhm. mais bi fa scandale gis député yoo xam dañuy ñëw am beneen jabar mariage fii dangam nangam coow la am ci la ko Macky Sall defaat benn décret boo xam dafa ne léegi benn député bu nekk benn jabar nga war a am ko réguler. loolu mooy li man bu ma demee ba nekkatuma député. Mhm. man man bu ma laaju sama pass dama koy delloo parce que soxlaatuma ko. Mhm. xam nga tax. Mhm. mooy bu dee tukki dëkk yi ñuy dem yàlla may na ma ay visa. Mhm. bu dee États-Unis am naa visa fukki at. bu dee Canada am naa visa juróomi at. bu dee Europe am naa visa ñeenti at. ah a nekk sama réew moom ma gën a nekk si réewu jàmbur xanaa lu dul liggéey boo xam liggéeyu réew mi la. kon man aw ma problème boobu noonu mais li am solo mooy boo xoolee Macky Sall defoon loo xam ni dañ koy rafetlu parce am na temps yoo xam képp ku nekkoon sénateur. Mm-hmm. nekkoon ancien sénateur yi. Mm-hmm. ñoom ñëpp dañ leen a joxaat ay passeport. jours avant son départ comme ni koy non loolu mi ngi pour defaraat décret bi pour dugal si ancien député ancien ancien ministre la. mais député yi moom 2017 bi fi may. wax non non ancien yi laay wax nga xamante élargir nañ ko. waaw loolu loolu loolu moom moo ko def parce que parce tax mu def ko xaw mais comme décret la mais bu bu leen neexul nañ def décret mais pas que ñuy wax mi euh, fële nga mooy aéroport ñuy ñu dese comme décret la mhm. Bassirou Diomaye Faye na def décret abrogé décret bu njëkk bi parce que décret moo ko remplacé bu ko defee bu ko defee léegi mhm. moo ñun ñëpp xam ne Macky Sall moo ko defoon mhm. président de la République woon sukkandiku woon ci constitution bi def ko kii tamit président de Bassirou Diomaye Faye ñëw na xam ne lii baaxul abrogé na ko loolu souvent kenn ko si ngaañu mais boo fa bàyyi décret pare def loo xamante ni tamit day violer li nga xam mooy loi bi askan wi fan la toll actuellement. waaw nekkal fi askan wi c'est une mhm. coalition la woon. Mhm. coalition bi ba tey am na si ay membre yoo xam ni ñi ngi ànd ak ñoom ci coalition bi mais am na si ay membres yoo xam ni bi ñu demee ba jël choix comme ñun ñoom bokkuñu woon benn choix bu ñuy jël dañoo dem seeti jamaay président. Mhm. foofu lañ dem aw mu benn problème parce que li ma leen faral di wax rek mooy ñu ñëpp dañoo maase woon tëggoon ni man lañ bëgg ma nekk candidat. la ñu war a liggéey lépp ci liggéey bu rafet def nañu ko. dem si parrainage yi ba yàlla dogal li ñu dogal nangu nañ ko parce que ndogalu yàlla mais dañoo déposé suñu récépissé parti politique ñu ngi interpellé ministre de l'intérieur bees bi la coalition nekkal fa askan wi le parti nekkal fa askan lu tudd. Mhm. pour suñu récépissé parti boobu mën ñu ko jox. parce que nag yaakaar naa ni. dañ ko déposé léegi yàgg na soo fi six mois ngi nii ba tey jii amaguñ tontu. ci li nga xamante ni. moo jëm est-ce a yéexee noonu 6 mois. Ah, moo ma jaaxal moo ma jaaxal ba tey jotuguma sama récépissé parce que amul benn contact boo xamante ni jóge na foofu bon te déposé nañ ko ba defoon des charges yëpp bu defee ñun ñi ngi si maanaam liggéey ci suuf terrain bi département yëpp bu ñu paree élection yi wax nañoo ak ñoom région yi wax nañoo ñoom wax nañoo commune yi ñu ngi préparé élection législative yi incha allah dañu fas yéene dem ci législative yi ak ay diputé yoo xamante ni day ñëw ak député xar kanam yu bees pour que sens réew mi ci doxalinu assemblée nationale parce que assemblée nationale dañ fa war a indi yeneen xar kanam yoo xam ne hmm. wax ju ban yooyu dafa war a jóge. Hmm. mooy député yoo xam ne dañuy am xam-xam ak xarañte pour taxawal seen réew. bañ nekk député boo xam ne dañ naan député Cheikh Abdoullah hmm. wala député nangam dañuy nekk député de peuple nekkal seen commune ak seen seen région. parce que loolu boo ko defee ndaw yu ay ndaw tamit lay doon yoo xamante ne day méngoo ak jamono. bañ a jël paa yi nga xamante ni tey dañoo retraité ñu leen dugal ñun ay ndaw la ñuy bëgg àndal mhm. dafa ay liste yoo xamante ne yu solide lay doon mhm. fexee teel a wut parrainage mhm. bi am nañu ko pour que dem ci élection législative bu neexee yàlla ah, bu fekkee régime bi fi nekk nii ñimee nañu nag nañu bàyyi ñu jàkkaarloo ñoom mais xam naa nii moom tam <laughs> ñu jéem a def ay gal gal pour que xam na ni Touba bu ma demee soxla en tant que député daan ma woteel parce que mun ñoo mun ñoo woteel ku ma gën tey sañ taxawaay ba ma am foofu si Touba amul kenn ku fa am taxawaay boobu noonu mhm. élection législative bokkul élection présidentielle mhm. kon maa ngi leen di wax ni nañu bañ a def galgal comme ni ko Macky Sall doon defee mhm. ba ku leen neexul ñu baar le parrainage loolu tamit dama leen siy parce que bu ko defee ma jàkkaarloo ak ñoom très bien temps bi jeex na honorable ñu bàyyi la nga tàggatoo rek waaw maa ngi lay sant bu baax di gërëm askan wi di wax rek ñuy euh, ñun ñu ngi si jàmm bu baax a baax xam naa ne fan yi di ñëw ko si néew dinaa waaj benn voyage boo xamante ne entre Dubaï ak euh, Canada États-Unis euh, dem Paris après xoolaat tuuti Euh, sama militant yi ne foofu noonu noppaluwaale parce que ku ne xam na ni sonn sonn sonn boo xaw xool diaspora bi <laughs> son nañ sonn boo xam il faut ñu génn dem nopp la ji hmm. bu ñu fa jógee nag après ñëw continuer suñu liggéey pour waaj élection législative ak biir si Sénégal bi hmm. en di wax réew mi hmm. ñaaw ji parce que am na suñoo xamante ne ressources yi ngay ñu toog di wax di ŋàññi nan xam ne léegi dañoo war a wuti liggéey ndax ressources yi du liggéey aussi nit koo xamante ne da nga koy wax lu bon ba mu falu wala nit koo xam ne da nga koy wax lu bon te taxul mu ma teewul mu continuer nga arte loolu noonu te ku sa yaay jur da ngaa war a bëggal sa yaay ak sa papa waaye warloo toog di wax nit ñi nga xamante ni seen yaay liggéey na ba am ay teraanga nga leen di xas ci ressources yooyu ak leen saaga yooyu nan ko arrêté aussi mm-hmm. xam ni loolu jëmul réew kanam jëmul réew kër mm-hmm. si woon ñëpp ñoo xamante ñoo ko doon def ñu bàyyi mm-hmm. que nee naa woon Ousmane Sonko dana génn si kaso bi Macky dana dem léegi ñoom bu Macky gi demee Ousmane génn léegi il faut sa chroniqueurs yi ak mi Sane Diogou yéen xanaa bis bu yàlla sàkk si deru jàmm ngeen di nekk rek xam nga il faut ñu arrêté loolu aussi xam nga euh, nañu bàyyi deru jàmbur yi ñuy wax gis naa benn waay boo xamante ni fan yi dafa nekk di génn ay affaires yoo xamante ni même batu ko quoi wax yi ñaaw yu nekk ñu koy wax ci nit. Hmm. yooyu. Hmm. gis nga nit da ngay fexe fa nga xam ne ka ngay tudd fa mu àgg. Hmm. yow nga fexe par àgg foofu loolu mooy nit. waaye doon gis nit koo xam yàlla may na ko teranga nga ñaanu ko teranga mu tax ngay wax si moom loo xam ne du dëgg nga sosal ko. du la mën a tontu kon maa ngi woo ñëpp ci dal ak jàmm. nekk ci ginnaaw réew mi. Mhm. projet yi nga xamante ni. Bassirou Diomaye nguur gu bees gi am na ko pour intérêt réew mi. Mhm. na leen si askan wi jàppale.

Euh, fii ak 92 jours war naa ñëw assemblée nationale leeral député yi ak askan wi mhm. pour wax askan wi leen léegi fii laa réew mi ci 5 mm. ans yi nii joxe kab bi euh, joxe ko mm. defee nag su boobaa ñu apprécier xool ba xam est ñun waxam ci doy na ba xam dañuy wax ni ko mais monsieur premier ministre il faut war de confiance mm. pour assemblée nationale ak askan wi xam ba xam yow na la wala wóoluwul la na ko accepté rek c'est une ñi si ëpp woteeluñ ko mu xam ni amul wàllu confiance mu démissionné mu fekkente ne tey nangu ko rek mhm. su mhm. waaw ñu ñu ñu rek <laughs> loolu mooy démocratie quoi dafay neexal kii waaw eh, parce que loolu mooy démocratie en di si woo ñëpp di xaar mhm. ñëpp ci jàmm ak daal daal si réew mi parce que loolu lañ soxla di ñaan kilifa diine yi di rafetlu aussi tamit comme ni ma ko waxee sorti Bassirou Diomaye Faye bi ci kilifa diine yi nga xam na ko na ko àggale ba pare mu gën a tàllal loxoom ñi nga xamante ne ñooy euh, askan wi na ñu nekk si langue politique bi parce que ñoom ñëpp war na leen recevoir waxtaan ak ñoom kenn ku nekk mu laaj sa xalaat. du mhm. tee moom mu nekk président de la république. Mhm. parce que am na ñu bari ñoo xam ne seq nañu am ak relation. Mhm. xëy na peut-être président de la république bokkul ak boo nekkul président de la république mais li am solo mooy na gën a ubbiku gën a tàngal loxo ñëpp te xam ni man li ma gis si moom. bu ko yàlla dimbalee mën naa dem fu sori. parce que nit ku la bëriwul coow nit ku yaru la. ku war maal tamit kilifa la parce que ni mu def noonu ba barki demb summi ay dàllam ci kër kilifa diine yi kooku ñun ñi nga xam dañoo dëkk Touba te am ngëm-ngëm pas-pas boobu nga xam ñun bu ñu duggee ci keeru sëriñ bi rek dañuy nekk maanaam ay Baay Faal mhm. déetu ñu ànd suñ sago pour loolu buñ gisee mu def loolu dañ koy rafetlu te di wax ne loolu wàññiwu ko dara teewul mu nekk président de la République mhm. teewul mu tudd Bassirou sant Diomaye Faye Diakhar mhm. Faye teewul tam yàlla li mu ko def mu defal ko mais ça nit la koo xamante bu defee loolu day gën a am ay ak ay yoo xam ne dañuy jóge ci ñam bokk jëm si moom. Mhm. parce que tey jii man mi wax ak yow ku ne xam na ne campagne bi lu nekk yàq naa ko mais ses bi mu def démb. Mhm. Mhm. tax na mbañ la ma ko doon wax yëpp si loo ne ni peut-être rek gis naa ne defu ko woon. bu dëkk defee lii day fekk si ni li mu def lu baax la parce que nit bu defee dara loo xam xamante nii wóoru koo def. da nga naan ko li nga def wóoroo koo def mais bu defee loo xam ne lu mu war a def la danga ko war a rafetlu tàcc ko sa ñaar loxo ngir encouragé ko mhm. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. très bien yooyu it ñu lay sant l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly bokk ci quatorzième législature nekk également njiital mouvement nekkal fi askan wi nekk un chef religieux ñu am def déplacement ñëw waxtaan ci actualité politique rawatina actualité nationale bi di sant également di gërëm di bi fete woon ci euh, caméra bi di sant di gërëm également mbokki internet yi ñu doon seetaan ci Sénégal 7 te di leen di jox dig daje ci beneen entretien spécial.